yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi xibaar boo xam ne wax na uh, fu mu feeñe léegi boobu la lan ko kër sëñ bi ba sëñ bi joxe na kon digal wax ne ginnaaw toll nañ fii nag te gisuñ ko nañ na nañ xam ne suba dañuy mottali fanweeri fan ak baraxlu mm. si suba ci ajjuma ji nga xam ne kon gaaw mooy benn fanu ramadan di weeru koor kon na ko ñëpp xam-xam ne gaaw gaaw bi mooy benn fan ramadan kon weer wi feeñut tey suba ci suba ci ajjuma ji mooy fan weereel mooy mooy mottali weeru baraxlu bi di fan weereel fan weereel bi ginnaaw suba nag ci gaaw bi mooy benn fanu ramadan di weer <coughs> di weeru koor gi na ko ñëpp xam sëñ bi ne ñoo ngi ñaan lekk ñoo ngi ñaan mu yàgg fi lool te wér mm-hmm. Euh, lii ñuy ragal ci réew mi yàlla dàq ko bu baax a baax ci dara ji sëriñ Touba. Mm. ba ñëpp delluwaat ci seen sago ci dara ji sëriñ Touba. Mm. wala salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maaleykum mm-hmm. salaam wa rahmatulah di àndandoo ak waa daayira Muxaddamatul Xidma eh, ñi nga xamante ne bii ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu koor gi.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 waaye day yem ci ñi nga xam ne ñooy nekk ci biir jumaa lu des lu ca des des na ko def ay ndimbal mu tàmbalee ci suñu weewu tànk mooy ñu nekk ci biir jumaa ji ba fu man a yem lu fi ñëw nag nu mu man a toll rek danañ ko danañ ko bokk ak bokki jullit yi bokki yi nga xam ne waaye nag ni ñu sëriñ bi digal mooy ñu tàmbalee ko ci ñu gën a jege ba fu mu mën kon fu mën a àgg dana fa àgg waaye fu mu agsi wut nañ xam ne dafa mënta agsi euh, ñi daan joxe seen i participation nañ xam ne sëriñ bi joxe na ndigal lu mel ne lam daan joxe kenn ku nekk la nga daan joxe soo ko mënta yokk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 te xëy na lenn li di tayeef lenn li du tayeef moo tax suñu borom di ñu fàttali boppam kon nag la ko jàpp nañ ne la ci gën a gaaw ci saafara si mooy dellu ci sunu borom dellu ci sunu borom itam jàpp nañ ne fa mu gënee mooy ci néegu yàlla yi waaye nag ginnaaw mbooloo bu fi dajee am na luñ cay ragal ñi fi nekk dañ fi nekk wutu fi ñëpp te saxoo fi eh, jëfe ndigal yàlla ak di ñaan suñu borom teggi ko ñaan googu sax nag moo waral kamil bii ngeen gis diirub liñ fi nekk wax waxtu wuñ julee timis ba noppi tasaare nañ ko ci suñu biir jàng xam ngeen ne danañ jàng alxuraan ci fajar gi danañ ko jàng ci tisbaar gi danañ ko jàng ñaari kaamil ci ci takkusaan gi mu mën a yóbbu tis takkusaan ak timis buñ jullee timis ba na film dañ jàng bi nga xam ne mooy julli gay mu commencé juróomi waxtu yi euh, euh, ngir ñaan yàlla teggi tiis bi nga xam ne moo am ci réew bi am ci àdduna bépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 kon nag bu ñu ko jébbalee suñuy mbir dañ ko war a déglu lu ñu digal ñu def ko lu ñu tere ñu bàyyi ko jëfe ndigal nag li muy yomb na lool waaye bàyyi tere mooy li jafe moo tax nag dañuy wax ne bàyyi tere moo gën jëfe ndigal kon nag nañu bàyyi nañu moytu tere yi nga xam ne sëriñ bi mu ngi koy tere te tënku ci li nga xam ne moom lay digle loolu daal lañ ci laaj yi ko am laaj boo jëm ci fatwa yi waaw koo xam ne itam am nga laaj boo xam ne dafa jëm ci laaj fatwa yi nga xam ne moom la ñuy def ci koor gi mm-hmm. man boo ko envoyé ci numéro yi whatsapp yi 78 295 24 77 wala 77 678 57 66 boo ci envoyé laaj bi ngay laaj ci fatwa yi nga xam ne moom la ñuy def ci koor gi incha allahu danañ ko jàllale boo ko dégloo bu soobee yàlla da nga ko dégg